أعوذ بالله السميع العليم من سر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي سرع لعباده من الدين وصن لهم من الأنظمة والقوانين ما يعيشون به آمنين مطمئنين ويحيون به سعداء مسمولين بعدل الحاكمين واستقامة المحكومين لا ظالمين ولا مظلومين fa lil aabaa'i birul baniina wa alayhim rifqu walliin wa xusnu ricaayati fi kulli xiin wa kadalika al amru bayna jamiici ru'asaa'i wal marsuu'iin wal mar'uusiin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin al mabcuusi bil ictisaam bi xayri sariicatin wa aqwaamin wa nizaam sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashaabihi alkiram wa ala lahum bi ihsaanin ma taaqabat al-layl ayaam kon euh, bisimillahi mbokki jullit yi ñuy topp ci jotaay bi nga xam ni dañ koo dooroon ci seen web tv Al Azhar Touba ñi doon ci ànd ak yéen miraas boo xam ne incha allahu taala dañ ko fee tàmbali woon euh, doon ko ci def ay ay duruus di ko ci di ko leeral di ko jëm a teqantal insha allahu taala ba kenn ku ne mën cee jariñu euh, kon tey ñu ngi ci euh, darsu ñeenteel bi muy lesson numéro 4 fan yee jàlloon yaakaar naa ñi ngi mujjee yem ñi ngi mujjoon a yem ci mawaaneexul irsi mawaaneexul irsi mooy yi nga xam ne ñooy tere ñooy tee donn maa yi tee donn nga xam ne juróom-ñaar yooyu ñu tënkoon ni kum nekk ci moom da koy xañ loolu nga xam ne mooy ab cëram ci miraas ba du donn kon loolu ci lañ nekkoon tey insha allahu taala kon ñi ngi tàmbale ci alwaarisuuna min rijaal euh, ci la ñuy tàmbale mooy ñii ñiy donn ci góor maanaam miraas ñiy donn du ñëpp képp koo xam ne jege na néew bi ci wàllu askan day donn képp koo xam ne day donn daal ñett sabab yi ñu waxoon te mooy benn koo xam ne dafa bokk ak néew bi ci wàllu askan muy doom ju néew bi jur bàyyi ko fi wala bàyyi néew bi wala lu taq moom ci wàllu askan muy li ñuy wax nasab wala euh, li ñuy wax sabab li ñuy wax sabab kon euh, sabab euh, sabab yi te doon benn ab sëy dox fa nikaax wala wala wala kilifteef muy ko goreel ab jàmm wala aw askan dox fa te yooyu kon ñi kon tey ñi ngi tàmbalee ci alwaarisuuna mina rijaal muy ñi nga xam ne ñooy doon ci góor danañ ci tegit alwaarisaatu mina nisaa'i muy ñii doon ci jigéen dañuy beri góor ñi ba noppi beri jigéen ñi ndax téere yi jàngale miraas noonu lañ koy bere bu noppee danañ ci teg alfurudul muqaddara fi kitaabillah maanaam alxuraan ñii doon ci cër cër yi ñi doon yëpp alxuraan tudd na ko cër yi ñi doon nat cër yooyu insha allahu taala benn bu ne danañ ko leeral danañ leeral cër yi ñaata ci yan ak la bu noppee dugg buñ duggee ci yenn biir téere cër bu ne am na ñu ko jagoo teg ci miraasu zawjayni maanaam ñaari way dencante yi seen dono ni muy demee ñaari way dencante yi mooy jëkkër wala euh, borom kër gi ak soxnaam maanaam borom kër gi bu fi bàyyi soxna si des fi euh, nu muy doon yan àq la am ci alali borom këram wala soxna si it bàyyi ko fi borom euh, gu góor ki des fi yan àq la am ci alali soxnaam loolu lépp incha allahu taala kon foofu tey la foofu la ñuy foofu la ñuy yem kon ñi yàlla def lépp ànd ak. leer ba lépp ba kenn ku ne mën koo jariñoo insha allahu taala kon ñi nga tàmbali ci alwaarisuuna lii ma way doon ya alwaarisuuna way wal wal waa alwaarisuuna way doon ya mina rijaali ci góor ñi kon bunt bi fa la tàmbalee kon ñu njëkk wax way ba noppi ñetti bayit la door koo jaar ci firim yi insha allah kon dani walwaarisuuna asratun fabnun ajal summa bnuhu wal abu jaddun in yaxul wal aqu mutlaqan summa bnal aq yahud ani saqiqa aw li walidin wujib wal amu misluhu kadabnul ammi wa zawju wal muxtiqu faxfaz nazmi faxfaz nazmi kon ñettoo yooyu moo tënk ñi doon ci góor dani wal waarisuuna way doon ya asratun fukk lañu ñi doon ci góor wala way doon ne ci góor ansarsun fukk lañu ñi doon ci góor fukk lañu ci kaw boo leen tënkee fab nun fab nun mooy doom ju góor ajal waaw samab nu xoo topp doom ju topp doom ju góoru doom ju góor wal abu ak ak bàyyi jaddun ak maam ju góor in yaxul ndem ndem dana wàcc xal la yaxullu in yaxul ndem dana wàcc kon ñi doon ci góor boo xam miraas yi dañ ko fati boo ñu ko tënkee da fukk la jox boo ko teqatee mu jox la fukk ak juróom danañ ko tënk tënk bi danañ ko du teqate ko it bu ñu ko teqatee itam wax juróom yi nga xam ne moo ci loolu ko def ko def ko fukk kon bii du njëkk bi ñu njëkk li mooy doom ju góor néew bu faatoo bàyyi fi doom ju góor gi doom ju góor gi euh, dana donn baayam wala mu donn yaayam moo xam yaayam fa bàyyi ko moo xam baayam fa bàyyi ko kon ñu ngi ci ñu doon ci góor kon doom ju góor yi ci njëkk bu jàllee sët bu góor boo xam ne doom sa doom ju góor a ko jur maam néew bi faatoo sët bu góoram boo xam ne doom bu góoram moo ko moo ko jur ki faatu moo xam góor la moo xam jigéen la sëtam bi nga xam ne daal doom ju góor a ko jur ba tey eh, day doon na mooy somam nu ko ay somam somam nul ibni muy doom ju góor doom ju góor wala abu ak baay baay mooy baayu eh, baayu néew baayu néew bi eh, ki ki jur néew bi néew bi fi bàyyi ko moo xam góor xam jigéen bàyyam ba tey ci góor day donn jaddun ak maam maam ba tey day maam ba tey day donn maam ba tey day donn maam ju góor waaye maam ju góor gii ñu wax nat mooy maam ju góor ji nga xam ne moo jur maam ju góor ji nga xam ne moo jur baay mooy donn waaye maam ju góor gu jur yaay moom du du donn bu ñu duggee kon maam yi ñeent maama waaye ñetti maam yi ñooy donn bu dee ci góor ñi mooy maam ju góor gi jur baay mooy doon ci góor waaye maam ji góor ji góor ji jur ndey moom moom du doon xañ na nag yeneen ngir doon la koy ngiru Maalik moom duñ ko duñ ko doon loo kon lim na fii doom ju góor ak sët bu góor bàyyi ko ci sa doom ju góor muy ñaar ak itam mm, uh, ak baay ak maam wala aqu uh, wala aqu ak mbokk mu góor mut mutlaxan ak ak ak nu mu mën di demee maanaam ak ak ak ak mu laxaan ak nu mu mën di mbokkoo nu mu mën di mbokkoo wala nu mu mën di demee maanaam mbokk mu góor ak nu mu mën di mbokkoo ku ne xam na ni mbokkoo mën naa dem ci ñett gépp maanaam mbokk mi nga xam ne dangaa bokk moom ndey ak baay baa mbokk mi nga xam ne dangaa bokk moom baay baa mbokk mi nga xam ne dana bokk ndey rek mbokk mu góor mii mbokk kon ci ñett wàllu yëpp day doon kon mbokk da ngay lim mut laxan la wax mut laxan moom ñëpp dugg nañ néew bi faatoo bàyyi ku mbokkam ndey moom ndey bàyyi tey góor bu lu ko donn bu def dara lu ko tee donn day donn ak maanaam eh, mbokk mbokk ak néew bi ndey tey góor ak mbokk mbokk néew bi bàyyi rek tey eh, tey góor tey góor boobaa eh, kon mbokk ci ñetti wàll yëpp lay doon sama xudda topp na nga lim ibnal aqi dooy mbokk dooy mbokk ba tey day day doon doomu mbokk ba tey day day doon waaye doomu mbokk boobu euh, doon doomu mbokk bay doomu mbokk bay doon foofu mooy du du ci ñett wàll yëpp maanaam doomu mbokk mooy maanaam sa mbokk moo bokkal ndey ak sa mbokk bokkal baay seen doom ñooy doon waaye sa mbokk moo rek kooku doomam du kooku doomam du doon sa mbokk mu góor doomam day doon ci kaw ñaari anam yii maanaam Mouhamadou njaay mii bu bokkeek Abdoul Khoudous Ndiaye mii. ñu bokk benn bàyyi euh, maanaam kenn ku ne sa doom ju mën naa doon mën naa doon mën naa mën naa doon bàyyi mën naa doon bàyyi bu ndawam boobu ba tey bu bokkee benn bàyyi tam noonu waaye mbokk kon dooy mbokk ki ci doon mooy ki nga xam ne bàyyam ak néew bi ñoo bokk ñoo bokk ndey bàyyam ak néew bi ñoo bokk ñoo bokk ndey moo tax moo tax misraax bi ci topp leeral na ko dañuy ax ah nii danaa jublu as saqiha kadi ab xarit ka ab xarit saqiix bi ñu ko waxee ab xarit ci wolof mooy mbokk moo bokk ndey ak baay nee na doom yi mbokk bi nga xam ni yàgg baay ma bokk ndey ak kooku lay jubla wax aw li waalidin wala ñeel wal ñeel baay wujudi goo xam ne fekkeef na ko maanaam sa doom yi mbokk moo bokkal nga xam bokk ndey ak baay muy saqiiq euh, ibnul xaqi saqiiq aw ibnu xaqi min jihatil abi moo tamit ni saqiiqa aw li waalidin wujid maanaam sa doom yi mbokk wax ne yàgg baayam bokk ndek baay wala yàgg baayam yéen bokk benn baay incha allahu buñ noppee danañ ko buñ jaaree ci biir noppi danañ ko tënk euh, lim ko benn par benn wax fukki yi lu ko waral ak fukki juróom yi boo ko feccee fukki juróomi ca dolli ko fu mu fu mu fu mu soqe ko incha allahu danañ ko leeral bu ko defee euh, wala amu ak bàyyi tax wala amu ak bàyyi tax misluhu kem euh, kem moom la waaw bàyyi tax alamu euh, wala alamu ba tey day doon amu muy bàyyi tax euh, day doon ci kaw ñaari anam bàyyi tax bàyyi tax ñaari anam yi muy doonoo mooy bàyyi tax bu ko waxee euh, mooy ki nga xam ni mook ki nga xam ni mook sa bàyyi ñoo bokk ñoo bokk mën nañoo bokk ndey ak bàyyi mën nañoo bokk bàyyi mën na mën nañoo bokk ndey rek fii da day bu mu càggee da sama xel da dem ci lu xoromu euh, génn kilifa benn mag mu ngi doon jàngal miraas ndeysaan euh, ba agsee ci ci baatu bàyyi tax ñiy werante doo ngay di werante naan ndax bàyyi tax lañu wax wala bàyyi tëx ñii ni déedéet du bàyyi tax bàyyi tëx la ñii ni déedéet du bàyyi tëx bàyyi tax la ñi ni ñi ni ñi euh, sëñ bi laaj ni ñi wax bàyyi tax fu ñu ko teg ñii ni bàyyee tax mu doon bàyyi bàyyee tax mu doon bàyyi maanaam bàyyi la bokkal Ah, moo tax ñu naan ko ñu naan ko moo tax mu naan ñu naan ko bàyyi maanaam bàyyi tax mu doon bàyyi ah, ñi sëñ bi laaj ni ñi ni bàyyi tëx ñi ni bàyyi la ñuy wax fu ñu ko teg mu ni bàyyi tëx lañ bàyyi tëx la ñuy wax ndax maanaam bu toogee sa bàyyi toog boo nee bàyyi day tëx tëx lu di di sikk sàkk ndax moom ngay waxal wala <laughs> wala sa bàyyi ji la ngay waxal ah, di lu xorom loo xam ne waaw mi ngi noonu kon bàyyi tax bu ñu ko waxee bàyyi tax ba tey lay doon bàyyi tax maanaam mooy kon ki bokk ak sa bàyyi waaye bàyyi tax ci ñaari anam yi lay doon muy ki bokk ak sa bàyyi ndey ak bàyyi ak ki bokke sa bàyyi bàyyi rek waaye ki bokke sa bàyyi ndey moom du moom du doon euh, kasaa ni ki nii ibnul ammi dooy bàyyi tax dooy bàyyi tax mooy ki ma sànq ba tey doom day doon waaye moom itam ci ñaari anam yooyu lay doon maanaam euh, ki nga xam ne bàyyam ak sa bàyyi doom bàyyi tax maanaam yow sa sa sa ragi sa rakki bàyyi sa magi bàyyi doomam kooku ñaari anam lay doon maanaam ki nga xam ne bàyyam ak sa bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi ak ki nga xam ne bàyyam ak sa bàyyi ñoo bokk euh, benn benn bàyyi waaye ka ci des ka ci wàllu ndey moom du doon ki nga xam ne bàyyam ak sa bàyyi ndey lañ bokk kook moom du doom du doon moom moom itam baay tax boobu du doon wa zawju ak jëkkër jëkkër bu fi jugee day doon euh, soxnaam wal moxtexu ak aji goreel aji goreel ab jaam loolu jamono yi jaam ak gor di am jamono ba ñuy wax ci sart yi ci sabab yi euh, asbaabuhu salaasatun alal la ay nasabun somma nikaahun wal wala euh, kilifteef jamono jàmm gor di am maanaam ku goroon ab jaam bu faatoo moomum kilifte ba tax na kon day donn kon fas mu daane la tatmimul bayit ni faxfas na nga wattu nazmi sama way kon way wi incha allah boo ko mokkalee ñett bayit yooyu dañ la tënkal alwarisuna min rijal kon fukk lañ waxoon fukki ci kaw da nga naan ñi doon ci góor fukk lañ yoo xam ne boo leen feccee ñu jox la fukk ak juróom maanaam boo koy tënk da nga doom ju góor ak doom ju góor doom ju góor muy set bu góor bàyyi ko si doom ju góor ak baay ak maam muy ñeent ak mbokk muy juróom ak doomi mbokk muy juróom benn ak baay tax muy juróom ñaar ak doomu baay tax muy juróom ñett ak jëkkër muy juróom ñeent ak ko goreel ab jaam muy fukk boo ko teg boo ko teqantalee nag day am juróomi ci wàll juróomi ci dolliku juróom ya mooy ba nga nee mbokk da nga mbokk ci ñettaan mi yëpp kon foofu dangay ngay jël mbokk mbokk néew bi ndey mbokk mu góor mbokk néew bi ndey ak mbokk góor mbokk néew bi bàyyi am foofu ñaar boo ñëwee ci doomi mbokk dangay lim doomi mbokk bokk néew bi da nga fay limaale doomu mbokk bokk néew bi ndey ak bàyyi ak doomi mbokk bokk néew bi ndey boo ñëwee ci bàyyi tax ba tey nga lim bàyyi tax bi nga xam ni mook bàyyi néew bi ñoo bokk ndeeg bàyyi ak ñoo bokk bàyyi ak doom baa tam ne mag bàyyi néew bi ñoo bokk ndeeg bàyyi ak ñoo bokk bàyyi looloo koy def fukk ak juróom moo tax ma ngi dañ ko daan tënkee noonu maanaam ñi doon ci góor fukk fukk lañuy wax ne boo leen boo leen feccee ak juróom euh, boo demee ci euh, kii euh, man nu rax biya ma ngi koy tënk di wax naan alwa والوارثون من رجال عشرة أسماؤهم معروفة معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأق من كل جهة كان وأنزل الله به القرآن تكي وابن الأق المدلي إليه بالأب فاسمح مقالا ليس بالمكذب ولا مكذب والعم وابن العم من أبيه واشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج wal muqtixu zul walaa'i fa jumlatu zukuri he wallahi boo demee ci euh, mandorox bi mi ngi ko doon tënkee ci ci noonu kon ñi doon ci góor kon euh, kon ñooñu la boo demee ci téere boobu ñu wax Madou Zamaan euh, teg sëñ kii def ko sëñ Madou Mbàkke moomu di téere bu am solo fa mu koy limee mi ngi naan fa asratun adad addu addu alladina urisu wa adadu nisaai sabun tarisu min arijaali min arijaali ibnun ma abnihi wal ab wa mutlaqul iqwati wal jaddu li ab wal jaddu li ab fabnu aqin laa mutlaqan wal ammu siwaali ummin wabnu ammin rammu fa zawj wal mawla alladi qad axtaa yaxjubuhu bi aasibin man xaqaqaa kon eh, kon mi ngi noonu ñii doon ci ñii doon ci ci góor kon ci tënk téere yëpp maase nañ ci muy fukk yoo xam ne boo ko teqantelee mu jox la mu jox la fukk juróom ba tey boo demee ci téereb kii moomu euh, basdul fayit temps imam ali saako imam gami boobu def ko nga xam ne abdulaam bu neex la ma ngi ciy wax naan way yu neex naan bi asratin saa asrul waarisiina wabil asrina qad na fi taadaadi man nabula ibnun wa aqun wa ammun wa ibnuhum wa abun jaddun wa zawjun wa mawla nicmatin wusila tekki ni fa fi lumumati in fassalta arbaatun wa fi luquwati aydan xamsatun waqila kon kon mooy noonu ñu ko waxee kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy doon ci doon ci góor kon alwaarisaatu min an nisaa yi ñu dugg ci al alwaarisaatu way doon ya way doon yu way al saatu mina nisaa yi maanaam ñi xam ne ñooy doon ci ci jigéen ñi maanaam jigéen ñi euh, nekkoon ni képp ku jege ci néew bi ci wàllu askan rek euh, day doon ci jigéen am na ci ñoo xam ne duñ doon te incha danañ ko danañ ko leeral ci biir góor ñi góor ñi itam booy seetee am na limutoon ñoo xam ne euh, duñ doon ñoom góor ñi. am nañu limoon ñoo xam ne duñ duñ donn maanaam loolu boo ko seetee danañ ko lim buñ limee ñi doon ci jigéen mu noppi danañ indi ñi nga xam ne duñ boo seetee ci góor ñi ba ñuy limuñu leen ak ci jigéen ñi limuñu leen kon euh, da koo tënk ci ñaari way dafa wax ni wal waarisaatu hunna sab'un fil adat bintun wa bintul ibni ummun laafanat wa jaddatun wal uxtu min kulli jihaat wa zawjatun muctiqatun larsiqat dañu wal waarisaat way doon way doon yu jigéen ya xun na ñoom sab'un juróom-ñaar lañu fil adadi ca limba fil adadi ca limba ñi doon ci jigéen ñi ba tey ñoom seenub lim juróom-ñaar la wala nga ni juróom-ñaar la yoo xam ne boo leen feccee ñu jox la fukk fee ñi doon ci góor da nga ni fukk lañ yoo xam ne boo leen feccee ñu fukk ak fii mën nga ni juróom-ñaar lañ yoo xam ne boo leen feccee euh, ñu jox la ñu jox la ñu jox la fukk ñoom ñu jigéen ñi bintun mooy doom bu jigéenu digg doom bu jigéen mi nga xam ne néew bee ko jur euh, maanaam euh, waa ji faatu wala ndaw si faatu bàyyi fi doom jigéen tam lu ko tee doon kooku day doon wa bintul ibni ak doom ju jigéen doom ju góor sa sët bu jigéen boo xam ne sa doom bu góor a ko jur maanaam ndaw si faatu muy jigéen ba waa ji faatu muy góor bàyyi fi sët boo xam ne doom ju góor ko jur kooku ba tey day doon ummun ak ndey ndey ji nga xam ne mooy jur néew bi moo xam néew bi góor la baay jigéen a ndeyam ba tey day doon wa ak maam maam ju jigéen ba tey day day doon ci jigéen ñi wal oxtu ak mbokk mu jigéen min kulli joxaati tukkee ci képp ca wàll ya maanaam mbokk jigéen tukkee ci fu mën di mbokkoo rek moo xam ci wàllu ndey moo xam ci wàllu baay moo xam ci wàllu ndeeg baay mbokk mu jigéen wax ne moom néew bi ñoo bokk ndeeg baay day doon mbokkum jigéen yi bokk ak néew bi nday dong day donn mbokkum jigéen yi bokk ak néew bi bàyyi dong ba tey day day donn kon mbokk lañu xam ne mbokk mu góor loolu la fii ci mbokk jigéen kon càmmiñ li euh, wàll am ci jigéen ji ci jigéenam jigéenam jigéen ji noonu la ci wàll la ci càmmiñam maam fu mu ci taqee rek moom daa taqee ci ndey ak baay moom daa ci baay ci ndey rek day doon wa zawjatun ak soxna muy euh, bu fi góor gi bàyyi ko wala waa ji bàyyi ko fi bàyyi fi soxnaam ba tey day doon ci kaw bu amul dara lu ko tee doon muy deful dara rek ci yenn yi tere doon moo ci ak aji goreel ab jaam jamono jaam a gor di am foofu saabu soosu mi alwalaayu kilifteef ku goreel ab jaam bu bu tey jigéen bu faatoo ba tey day doon alali sangam ba alali jaamam ba la da siqaari fa ndëgër laaya kon loolu mooy euh, yi doon ci góor te ñu jëlee ko ca euh, ñi nga xam ne dëgër loo nañu seen i seen i wax kon juróom-ñaar yooyu kon ndax ñii doon ci. jigéen juróom-ñaar ma loolu mooy ñoo ñu doon ji ñu doon jigéen da naan juróom-ñaar la yoo xam ne boo leen feccee njox la fukk dangay njëkk lim doom ju jigéen doom bu jëm ju jigéen bu fi néew bi bàyyi wala doom bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor muy sët bu jigéen bu doom ju góor jur walla nday néew bi wala maamam muy ñeent wala mbokkam mu jigéen muy juróom wala soxna su mu fi bàyyi muy juróom muy juróom benn wala kon ku ko ab jaam muy juróom muy juróom ñaar kon ñooñu mooy ñii doon ci ñii doon ci jigéen waaye nag nañu waxoon fee ci ñi góor ci góor ña da nga ne woon ñi doon ci góor fukk la ñu wax ne boo leen fee ñu jox la fukki juróom fii itam ñu doon jigéen juróom-ñaar ne boo leen jox la euh, ñu jox la ñu jox la ñu jox la fukk juróom-ñaar boo leen feccee ñu jox la ñu jox la fukk maanaam da ni doom jigéen ak doom bu jigéen bu doom ju góor ak ak ndey ak maam ak mbokk mu jigéen ak mbokk mu jigéen ak euh, maanaam fi ngay fekkee maanaam boo jëlee doom ju jigéen ma baam ko ak doom jigéen bàyyi ko ci doom ju góor ak ndey muy ñett ak maam maam foofu dangay ngay wàññi ñaari maam maam ji jur ndey day doon ju jigéen sa maam jigéen ju sa day doon ak maam jigéen ju sa baay muy juróom ak mbokk mbokk da ñett mbokk mu jigéen bokk néew bi ndey ak baay mu juróom benn mbokk mu jigéen bokk néew bi ndey mu juróom ñaar mbokk mu bokk néew euh, bi muy euh, juróom ñett nga teg ci soxna muy juróom ñeent nga teg ci ku gore ab jaam muy fukk kon juróom ñaar bu fekkee mu jox la mu jox fukk ba tey itam euh, boo noonu la ko noonu la ko boo nee ci man rax ba tey noonu la ko leeralee ma ngi wax naan wal waarisaatu min nisaayin sab'u lam yu'ti untha xayrahunna shar'u bintun wa bintibnin wa ummun mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa muqtiqa wal uxtu min ayil jihaati kaanat fa haadihi hiddatuhunna baanat kon téere boobu di man rax bi ba tey noonu la ko leer leeralee nga xam ne juróom-ñaar lañ ñi doon ci jigéen boo xam feccee ñu jox la boo leen ñu jox la ñu jox la fukk boo demee ci basdul faid boobu borom laab yi bu neex boobu maa ngi cee wax naan wal waarisaatu ala al ijmaali iddatuha sab'un wa in fussilat fal asru maa asala maa xasala mu ne wal waarisaatu way doon ala ijmaali ci mbëbëstal iddatuha seen lim yu jigéen ña ñoom jigéen ña sab'un juróom-ñaar lañu waaye noonu fussilat neem fecceef na ko fal asru fukk maa mooy man xasala am na mu teqale wax ne commencé tafsil bintun wa bintun wa ummun jaddataani wa zawjatun wa uxtun bi tasliisin wa zaatu wala li ma wax nag bintun wa bintun bu ñu jàpp ne dama baam waaye foofu ñi jàng na xam nañ ko maanaam euh, euh, euh, dafa xasaf mudaaf ilayhi mi waaye loolu rubama xat laa yaltabisu lil aqil mën naa a lënt ci ko ci ko ci ko maa dafa asaf mudaaf ilayhi maanaam bintun wa bintu ibnin la war la waroon wax waaye dafa asaf mudaaf ilayhi loolu nag rubama xat laa yaltabisu lil aqil bintun wa bintun la wax wa ummun jaddataani wa zawjatun wa uxtun bi tas tasliisin wa zaatu wala euh, kon euh, ñooñ ñi mooy ñi doon ci góor waaye nag am na ci loo xam ne fi ne bokk na ci li tax ñiy jafareel fi ne lii nag boo ko déggee daan lii da xorom na daanaan maanaam fukki fukki fukki góor juróom yu bokk ci maanaam yoo xam ne kenn bokk ceeg moroomam wala fukki ku yi jigéen yoo xam ne kenn bokk ceeg moroomam bu kenn nit faatoo ndax alal jii ñii ñëpp maanaam lu man ñaar fukki nit ak juróom ñi tax ñëpp ñëpp ñëpp ñëw ko nekk am ci cër waaye déedéet du demee noonu maam dañuy daaneelante seen biir li wax euh, alxaj bu danañ ko leeral muy yiir da ca am ñoo xam ne euh, bu ñëwee dañuy xas a daaneel ñu bëree bëri nekkul ni ñi mu wax ñëpp da dañ ñëw waa ji faatu ñëpp da ñëw fi ne jox ma jox ma jox ma wala taxaw ci miraas ma am kenn am ci cër waaye fi mu toll naa naa la leeral bu góor ñëpp dajee yéen góor ci donn bu jigéen ñëpp dajee yéen jigéen ñoo am priorité pour donn bu ñëpp dajee naan muy góor yi ñu waxoon ci ñi doon ci góor muy fukk ak juróom yi fukk la yoo xam ne boo leen feccee njol fukk ak juróom ak juróom ñaar yu jigéen ñi nga xam ne boo leen fukk bu buñ dajeek ju góor ña muy ñoom ñëpp naa la leeral kan ñooy doon kon loolu téere boobu boo demee ci Basuul Fayit moom ndeysaan baax nañu ci leeral ko leeral solo xam naa ñu tënku ko rek kon euh, ma ngi wax naan taxwiihi inda ijtimaa al waarisiina salaasatun min ibnin wa zawjin max abin usila maanaam maanaam ñii doon ci góor ñooñu ñëpp ñu lax fukk yooyu nga xam ne bu leen feccee ñu yor fukki juróom bu ñëpp bu ñëpp ñett ñii ñoo cee doon ndax ñett ñii ñoom dañuy daaneel ñëpp te kenn mënu leen a daaneel mooy doom doom ju góor ak jëkkër bu soxna su faatu la ak bàyyi ñett ñi moom daaneel nañ mag yaag daaneel nañ rakk ya daaneel nañ bàyyi tax ya daaneel nañ doom bàyyi tax ya yëpp ñi doon ci góor ñëpp daal buñ dajee bu ñooñ ci juróom yooyu ñett ñi ñoo am propriété ci doon muy doom ju góor ak jëkkër ak baay ñu dul ñoom day day daanu moo tax mu tënk ko tax wiihi ànd ijtimaa al waarisiina salaasatun min ibnin wa zawjin ma abin usila bu ci jigéen ñi buñ dajee itam nii lay demee wal bintu ànd ijtimaa al wa bintu ibnin wa ummun wa uxtun xawsuhunna jalaa ni ahni saqiqata waskur zawjatan fazihi xamsun fala leen anha wala tahila maanaam jigéen ñëpp buñ dajee buñ dajee juróom ñii ñoo ci am ñoo ci doon muy doom bu jigéenu digg bi nga xam ni euh, doom ju jigéen ak doom bu jigéen doom ju góor ak ndey ak mbokk mu jigéen mi nga xam ne moo bokk néew mi day bàyyi ak soxna juróom ñii moom ci jigéen kenn mën leen a daane bu ñu fi nekkee rek mën nañoo daane yenn mbokki jigéen yi ci yi ci des kon na lay demee léegi nag ñu leeral bu góor ñi ak jigéen ñëpp dajee ñañ la waxoon ñooy doon ci góor muy fukk yoo xam ne bu doon feccee njool fukk juróom ak ci jigéen ñi juróom-ñaar ba mu fukk buñ dajee muy ñaar fukk ak juróom muy 25 ah, buñ dajee eh, juróom ñi ñoo ci doon muy wa xamsatun lijtimaail kulli min waladin wa walidayni wa zawjin irsuhum sujla maanaam bu ñëpp dajee juróom ñoo ci doon juróom ñoo ñooñu dañuy daaneel ña ci des ñëpp waaye ñoom ñi kenn mën leen a rotal kenn mën leen a yiir te kooku mooy doom ne bàyyi fi doom ju góor wala doom rek góor mën na caa dugg jigéen mën na caa mën na caa dugg euh, ak ñaari waajur muy ndeyam ak baayam ak ak jëkkër ndeyam ak baayam ak jëkkër maanaam euh, mën nga ni kon doom ak ndey ak baay ak ak jëkkër maanaam juróom ñooñu boo nee doom day duggal ci góor jigéen kon daanaka bu la neexee tax ni doom ju góor doom ju jigéen jëkkër ak baay ak maam kon euh, noonu lañ koy tënkee nga xam ne kon bu jekki-jekki rek ni ah man ñii ñu wax ni ñooy doon ci góor ñëpp dafa bëri lool ñi doon jigéen tam dañu bëri ndax bu mu waaji faatu ñi ñëpp ñooy ñëw ni kenn ko ne bëgg am cër kon loolu nu may def ni may séddale cër lii itam bu yombee itam lii dañ la jaxase ndax doomu baay tax doom doom baata bokk ndey ak baay la de moo tax fi ne ni ñu koy jàppe fànn gi jëfewut noonu ndax ñi yirante dafa dafa bari lool euh, kon kon incha allahu foofu lañuy ñuy yemale tey ci darsu bi muy leçon numéro 4 euh, ak darsu rabia ci maanaam euh, jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko doon seq yéen ci téere boobu ñuy wax sulamu tulaab ala tariqi itul xisaab ñu defoon ko ngir bëggeen cee bëggoon cee laay birante incha allahu taala kon xam naa ba jotaay yi di ñëw rek waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu